asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi dellu si itam di waxtaan si ak yéen ci yenn ci mbir yaari mbir ñoo taqaloo yaari mbir yi ci des nekk yaari mbir yu beru mbir mu njëkk mi moo di màggal gii nga xam ne mooy màggal gu mag gi tegee su ko def ci weer wi ci fukki fan yi ak juróom-ñett war a tase ñaar fukki fan yi ak juróom-benn ci loolu tubaab moom laa leen di fàttali ne yegg si na te di leen ci fàttali itam waaye xam naa sax ne fàttewu leen ko li ma leen ci daan beral itam te di ko wéer ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo santaane màggal bi dalee ko ci loola ba tey maa ngi ko yeesalaat lépp loo xam ne nit yi téewoo na ko te bëgg ko te mun koo ñàkk na tabliwu mu ne bu ko ci sàkkoo rek am te kenn ñàkkul bëgg kon nag koo xam ne am nga bëgg koo xam ne bëgg nga yàlla dimbali la ñaan naa la nga teew fi sakku si bëgg bëgg wóor ma ne ko am loolu waxoon naa ko fi waxaat naa ko fi maa ngi koy waxaat te du ma dañ di leen ko wax ndax lu ma wóor la lu ma wóor jëng kon ma yam foofu ci mbiru magal gi yëgal leen nag ni leen dana nu ci am itam gan njiital réew mi dana ñëw ci gi bis bi nga xamante ne moo topp ci bisu bi di bisu gaaw kon nag képp koo xam ne magal si woon nga ginnaaw boo magalee ba ñaan naa la nga yendu gaaw bi teeru la ne gan googu ba mu dem ku nekk door a gont dellu loolu maa ngi leen koy ñaan loolu mooy yaari mbir yi nga xam ne ñoo lëkkaloo mel mi ci des nag eh, ay xew yoo xam ne eh, ab journal la bu génn am lu muy wax li muy wax itam mu jëmee ko ci wàllu Serigne Touba te tuddaale ci sama tur loola itam lu jàngal ma ko wax ci seenu naqar ak fu mu leen toll waaye loola moom la ma ca tontu ñëpp moom laa bëgg ñëpp yëg fu fi ab taalube ne na yëg ne loolu moo ngelawayam moo darayam man ci sama turu bopp man lu nit mën a wax ci man woyof na ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lenn lu may di taalube bi sëñ Tuubaa bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëm doon liwuma ci dara kon nag euh, lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko koo jégal ndax du man duma kenn duma lenn wàllu sëñ Tuubaa itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu ngeen boo def ko bànneex te bañ koo defu naqar ngir dara mënu ca juddu lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu ne defees na ko ko mës ta tontu ci mel ni mbir mës ta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu a ne ci loxol yàlla rek la ko mës a bàyyi yàlla def ca lam ca war a def bi mu demee itam ay noonam di jëflanteeg moom ba fa seen kàttan yam ñu yam fa dafa daal di bind ci loxol boppam wax ne xafawtu xanil ahda i toran li wa ci man nafaahum li xëy di sarmatan la su adafam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 xam naa xam-xam bu wóor ilmul yaqin ci ne yàlla nekkal na ma te itam yonent bi képp ku ma bañ dina la alak loolu war naa doy fi doy na wëris ñuy jéem a yëngatu ci lenn jëru gannaaw bu loolu wéyee dafa dellu bind ne biraasu man baarasani biraasu man yu baarisul muntaqimul baarisa man léewtoo man moog léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind bi dee ñu am képp isa talabtu min ilahi jaaba wa in saraftu min ilahi salaba soo sàkkoo ci yàlla lu ma ko ñotti mu daal dikk fa saasa lu may gañe fa saasa mu daal dej kon nag loolu doy na firnde ci ne yëngatu ci lenn diko ko jéemal def wa maa ngi ko yegal tali bepp bëgg fofu yi mané ñu ñi fi fii man loolu rek am sax loolu moy li top ci moy li ñettel euh, waxtan bi li ko ñettel nak modi ci ci Touba dama fa ci ni fet ma di fi sama lepp ma jëme ko ci seigne Touba ci diko fi liggéeyal man kam sama katan te and ko ñepp legi daara ji ma leen fi waxoon ne leen maa ngi ko ko fiy defal ngir mu doon mu doon ab dencukaayub téere te xamaleen leen leen sottee dana wér dana rafet dana yaatu loolu lépp yàlla ak sëñ Tuubaa dimbali leen ca ba sottee fa léegi léegi noo ngi ci naaru def fi jàngukaay boo xam ne daf fay jàng alxuraan di ko dafa jàng yarub diine dafa jàng yarub ak yarub ak taalibe loolu nag tàmbali naa ko dama ko bëgg tuuti wax kenn di ko dégg te yëkkati moo ko ba ku nekk xam ne lii ma wax moom laa maa ngi ci daara jooju nag bi ñu seetee li ko war a liggéey dem na ba yegg ci milliard ak ñetti téeméeri million waaye dama ko bëgg te wax kenn di ko dégg ci tàmbali ko tàmbali nañu ko nag dawal nañ ci lu mat ñaari téeméeri million li ci des nag ci ngoogu ci sama loxo ak loxi mbokk boolem taalibi yëpp yaakaar sëñ Tuubaa ak mbokki mbokki jullit yëpp du ma ne kenn andil ma ci lenn waaye lu ma ci waaye jox danaa ko ci def defal ko ko ci sëñ Tuubaa léegi nag loolu mooy li ma leen bëggoon a xamal mooy ñeenteeli waxtaan yi juróomeeli waxtaan yi nag ma dolli dolli ko ci muy mbirum dëkk bi dëkk bi dama leen a waxoon ni leen nanu ko wormaal nanu ko teral nanu ko setal ngér dëkk bi ci la sunu yaakaar yi tey nekk sunu yaakaar yi ëllëg nekk kon nag lépp loo xam ne na naqari na yàlla war nanu ko fee daw war nanoo santaane dee si ko fi daw la ma leen waxoon nag ne leen lépp lu ñu fiy tere te yàlla bañ ko sëñ Tuubaa bañ ko maa ngi ko koy bañ le te bañ ko googu bañuma ci dara lu ma jural baax naa man teg naa ci sama bakkan maa ngi leen koy fàttali bëgg daal ngeen yëg ne dëkk bi dëkk bu sell la bu ñu sellal la bu nu fasoo mu sell la ku fi ñëw si bëgg a mucc tax ak bëgg a sell kon ku fi ñëw indi fi ak jub ak lu sell ak lu yelloog dëkk bi ku fi indi leneen lu dul loola it loola ca bu ca ba mu la bett bu mu la naqari ne la wóor cëng ne def ci borom dong la loolu na leen wóor cëng bu loolu wéyee nag ñun waa dëkk bi nu xam ne gan ñii ñëw nag ñun ñii la ñuy sunu gan te yàlla nu defal tawfeex ju day ni nu nekk fi ñu dina fi fekk waaye noo bokk lu li ñu fi wut si ñun ñi si nekk moom la nu bëgg moom la ñuy wut kon nag tawfeex yi ñu ci ñu fekk si bu nu ko amee nanu am na itam jom yi ngóor-góorlu ba bu ñu fi ñëwee la nga xam ne dëgg war na koo defal gan nu defal leen ko dalal leen sàmm leen toppatoo leen teral leen fexe ba ñu bañ amuk jaaxle ba ñu bañ amuk tuuraange ba tere ñuy dellu gannaaw bu loolu wéyee itam ah, ma di leen yëgal ne fii ku fi jëm si njëriñ rek nga fi wut kuy wut njëriñ nag doo ko boole ak yàq tawat nañu wax ne saxaar bu nee ci yoon wi di ñëw ay nit dañuy tax ci yoon wi di leen sànni ay doj ba di ci gaañ ay nit kon nag ngeen yëg ne loolu dëppoo wut ak yar dëppoo wut ak teggin te sutura nekku ci te ku bëgg njëriñ di ko wuti si barab lépp loo xam ne li dëppoo wut ak njëriñ dëppoo wut ak jub da nga ko war a sànni ci àll ba góorgóorlu leen ci seet ne lu baax leen tax a jóg ñi fi ñëw lu baax leen fi indi yéen ñi fi fekk lu baax leen fi ba ñëpp di jëfante lu baax di jëfante lu rafet loolu moo gën gannaaw bu loolu yooyu itam ma di leen yëgal ni leen borom oto yi nga xam ne danañu indi nit ñi lu ñu mën ci ak laabire ak dimbali leen ñu ko def na nañu war a defee nag ak la leneen la ca war a dolli ko nag lépp sëñ Moustapha dana leen ko leeral na mu gën a na mu gën a baaxe gën naa yelle ñu sàmmee ko noonu a ko na jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di di ñaan yàlla boole ñu dimbali boole ñu suturaal boole yéene leen suñuy biir indi leen ci jàmm ngeen fekk ñu ci jàmm li ñu fi wut lépp nu bokk ko am ngeen dellu ci jàmm fekk jàmm fa ngeen dëkk yàlla defal ñu sutura àddina ak àllaxira jërë ngeen jëf baal leen bu ngeen déglu président de la république lu jiitu ñu ñëw ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké xalifatu général muslim sëriñ bi ñëw naa fii ngir maagal liggéeyu Cheikh Amadou Bamba bi nga xam ne liggéeyam bépp mu ngi jublu ci dimbali nit ku ñuul mu man a dégg alxuraan te jëriñoo ko liggéey boobu de rëy na lool ci wàllu diine ak njëriñ doomi adama yi yoonu Sëriñ Tuuba dafay defar nit ci xam-xam ak jaamu yàlla loolu moo tax liggéeyu murit yi tax na Sénégal yokku jëm ci kanam su fekkee ne 1960 ba léegi ci ñaar fukki at nattaange Sénégal yokku na ñetti yoon liggéeyu murit yi ci yokkute googu met naa ponk lool statistique yi ñoo Et wone va tubaab dina na l'islam di fitti di yeewu di jëm kanam sunu tontu ci loolu mooy nun waa Afrique sunu l'islam euh, dara lu sunu am am bu àdduna bu tubaab yi ñu di européen ba américain looloo tax sax ci Afrique fekkee nañoo sëriñ yi ci fiti ci yeewute googu gëm naa ni sëriñ Touba Cheikh Bamba nit ku mag la waaliyu la woon yàlla moo ko mayoon loolu yaakaar nañu barkeem ak ñaanam dama tàmbalee politique ba tey daama naa waaxu ñëw ci yéen siyaare leen diisoo yéen ci fi adduna bi ci soxla baadoole yi déglu ngeen déglu ngeen ma diis ngeen ma ñaanal ngeen ma yàlla sëriñ bi El Hadj looloo tax waaxu naa tey ñëw naa ab délégation bu gouvernement ndax siyaare la gërëm la taagu ci jàmm te laaj la nga ñaanal ma yàlla. loolu bon moo di kat. président maa ngi lay maa ngi nuyu itam kilifa yi nga àndal ñuy kilifa yi réew mi ak kilifa yi nga àndal ñu toogal ci seenum réew yéen maa ngi leen di nuyu dina yëgal ne li nga wax dégg nañu ko bu baax a baax tàggu bi nga tàggoo di dem yëg nañu ko mu dina yëgal ni ne liggéeyal nga réew bakkan yaa ngi wàcc réew mi gërëm na la waaye yow nag yaa leen war a gën a gërëm ngir yow mee la fal te wóoruñu la te nañu la mu ñu la faru tën sa liggéey du rafet mu ñu la war sa liggéey du àgg kon nag ngërëm lu la réew mi gërëm yow am ngeen ngërëm ngërëm lu ko yett yoon ndaw fukk kon nag maa ngi lay ñaan nga delloo sa ngërëm yow itam ci nit ñi jërëjëf dégg nañu ci taxawaay lépp lu nu ba nga fi toogee ba léegi lépp lu nu ma sa yittewoo nga tàbbee ci sa nopp la nga war lépp nga ko jërëjëf nga baal ma àq nag ma bokki taalibe yi di sama bokki jullit jërëjëf asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit nga xam ne noo bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokki jullit nga xam ne noo bokk alharam yéen bokki jullit nga xam ne noo tax walisina amanu wa amilu saalihaati وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ما نجدين دنيا ما نجدين تسمت تشير تحواي تنين في تحو من ياري تحواي تحواي دمبي غير مدلغ تحواي تيجي نجيل في جنود الانتر جرغين جب يالا نيالا بوري دمبي تبولين آه بسو نجيري جب آه تجي مجنون سايا باتي نرو باي كوشي جتاي جي جي نيب أمير جارانو يالا نيالا تحل أو جسولين بنيت جب ngeen ngeen ànd ak moom it ba am naa loo xam ne dama ko ak yéen ñëpp loola dafa loo bind moom ba noppi nag teqi na digal lu lu genn buum li kenn jël jox na ci ndigal ah bind gi kenn tëb lu ko ngir moo min zakarin wa unsaa ah dar gi mënu dar xam ak buum yaawul mooy innamal mu'minuuna ixwatun mën na man innaman naas ixwatun waaye waxu ko innamal mu'minuuna ixwatun la wax. bi mu ko waxee baagali daf cee daal di sësalu fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum moo di bokk leen yéene bokk leen pexe li ngeen am. loolu nag bi mu ko defee baagali mu daal am lu mu nu wan yàlla it mu am lu mu di digal li nu wan moo di ndax loo woon ne seytaane mooy séedum noonu inna seytaana lakum aduwwun digal nu nu fa tasasoo waatu woon bu bu mënu digal nu jàpp seytaane am noonu yaakaar naa ne jullit bu ne xam na ne lu ko naqari ci bopp mu seytaane ko ko teg kon nag loolu la nu wax bi mu waxee loolu baax nag dañuy jë lu bokk di génn jëmm nag am na nag loo xam ne faw ma wax ko yéen loola moo di mbooloo moo gis la ñu seet loolaay seen addina bala ñu ko mën a jëriñoo mata ñu ko takkee ni aw say moom mbaa duñu ko mën a jëriñoo loolu li ci firnde mata mi li muy bari bari ci àll bi dogal ci buum di ko takk dara lu ñuy jariñoo du ci mën a egsi ci kër gi danaa leen ko jox ci yeneen i misaal lu leer nañ ñi ba ngeen mën koo xam moo di ku ci xëy suba sa ci sa téléphone yëkkati ko boo poste bi ginnaaw bu juróom-ñetti waxtu jotee dana lu ca poste boo bëgg dana la ko jox ñooñu loola la ñu seet yow ko ñu ko yow ba mu doon genn buum moo waral ñu mën caa jëriñu mën caa jëriñee saxaar ci ab raay rek lay jaar loolu boo ci gaar bi saxaar ga nekk Tamba ak saxaar ga nekk feneen su saxaar avancé ba mu tardé fa boo ko laajee daara ba ñu wax la ko loola li ñu séq mooy suñu addina yow ga ñu ko yow moo tax ñu mën koo jëriñoo mën caa jëriñee ci si bàyyi ko bër ki dem ba faatu ñu di ko wax pankaat xaw ma kanay doomam waaye ba muy dundale saa boo soxla xam fu gerte am boo ko téléphoné mu ne la gerte nga baraf sangam gerte nga baraf sangam nangam nangam la gerte sangam mel loolu booba loolu la ñu séq loolaay seen addina moom la ñu séq yow ga ñu ko yow moo tax ñu mën caa jëriñu mën caa jëriñe kon nag ñun ñuy jëm nañ ñëw ci li mu seq li mu seq moo di diine nga xam ne yàlla nee mooy diine fa moom ak réew mi xam ne dañu see juddoo te jamononte loolu yaar lañu seq kon nag loolu bala a jëriñoo lenn dana koy takk li ëpp mu tax mu mel ni a ubbi ubbi loolu mooy li wér moom la ñu war a def bu ñu ko defee ba àggal nag dafa am lu ñu war a sàmm ci biir loola moo di li yàlla digal mboolu jullit mu ànd loola loola wa taxawanoo alal birri wa taqwa wala taxawanoo alal ismi wal udwaan di dimbalante ci aw lu ak lu jëm ci ragal yàlla te bañ a dimbalante ci bàkkaar ak lu jëm ci ak noonale loolu nag bu ma ko defee noonu nga xam ne la ko yàlla waxee dana nu jural yett te yett yooyu lu ci ne dana nu jëriñ dana nu jural coxeelu yàlla dana nu jural yàlla baaraan jiwu dana nu jural yàlla dox suñu diggante ak seytaane coxeelu yàlla gi mooy gan inna allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ñëpp yàlla sopp la képp koo xam ne yaa ngi xeex ci aw yoonam def ay sappe mel ni euh, nuur bi du taqari loolu kon wane na ne mbooloo mu ànd di nekk ci jub ñu ngi liggéey ci yoon yàlla ana garanti bi mooy ban mooy wala lay jàll allah bi li kéefirina alal mu'minina sabiran lan arafu dàq la bu ko yàlla waxee góor nag bu nekk la mu dàq doon du dellu ana ni mu doxee suñu diggante seytaane itam léegi bu ñu ko di inna ibaadi laysa alayhim sultaanun illaa man ittaba'aka mina al-ghaawina mu nekk ci biir bi ku bëttul ñaat bi seytaane bi jotee yow dara kon nag ginnaaw génn jëmm la ngeen bokk la ma yëgal leen ni leen diw murit la diw xaadir la diw tijaan la mu ngi mel ni diw dafa xeex diw dafa ñuul diw dafa xereer diw sa bokk ndey bàyyi te foo ci ñett ñu bokk ndey ak baay am te kenn ku gàddu bëgg caatam kenn dafa yëngu waaye mënu mënu ta fexe ba ñu tam te kenn te tabaat wuñ ko ñett ñu bokk ndey ak baay benn bii rek a liñ loolu na leen wóor dégg kon nag li ma leen ci sant moo di saa bu ngeen ci setee wax ci ab tijaan lu wër tey murit wala tijaan buy wax ci murit lu wër tey tijaan wala xaar yi buy wax ci murit tey tijaan loo xam ne wóorul لمن انتصرت بوضع المول بيان سنتاني دفلنكو فأغر الهنهم حتى يقول دي شن غيره ولا ديشن دفلنكو كنا أقول دواء لك من يوم وقت رجل تبنو سيكو بعيثم سيد لا كل وقت يوم لو ورد وقت كل وقت من دقو دليل قرد كل يجعب صحو ngir yar rek ko wara tabu tu yetel ba nga xam ci mom ko dara sa dam bay la seen wa ila ngay ko xam ni ni ko يا def ñeexu la yoy yar rek lenn lu am ko ñu jaan تنفعها مشررة ليت أنا ربي والنبي تعملي إمامها حين أسمي تعملي يعني يعتل يعلن نتلهم يرنسب نتلهم لأن يمكن نتل في ليسر أي زيبر في دي دنيا والمبوتم قال لنا وحنا درجة تحدو وليس تنسفي سما درجة يكت كونت بسوفة ومن لها من الوراء صفيق به كوخا سوفة سما درجة جديدة يعلن سوفة لك kooku mbiram bu set la ba ñëw nag ci sa mbirum bopp man wax li ci la tey daal maa ngi wax ne maa ne maa ne nag fu ne dootu doon dara danaa bëgg ne maa ne tey bu bu ëllëgee bu doon jéggee moo ne bu wuteeg lii ma waxoon ne du ma kenn bu fekkee jëf naa la ñu ne moo ne. léegi man day maa ne fépp nga di ko yëg sëñ Tuubaa ne classe yi nekkal jox naa ko sama dund jox naa ko sama dee jox naa ko sama yëngatu jox naa ko ni mu ko joxee Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa بالله لا إله إلا هو حياتي ومماتي حركاتي وخطاياتي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتسنى بمعين قلت لم في نتوان تبلا في قصيرة نكا لم في نتوان موري نتل في يالا أدنيانا دوليني يالا يرم لين نوبين دين خذ أمة المصحى وما يجلو له خود أمة المصحى أن كل مصيرتي آران تاتو يانا دي بيجيب بيك fekkam xamee xalxa yaa man jadduhum badaa yow ma bileef yow mi nga xam ne yaa leen yaa tas seen am yàlla wax ne yaa maalikal mulki yaa man jàlla am xawari yow mi nga xam ne yaay buuru buur yi i xam jamii al wara yow man boole bindee yaa yaa xaar yéen radaa loolu nag dafay waral bu fekkente ne aw ma aw ma dara jëy di laaj yàlla mu yërëm bindee yi dana am ful bu day ne képp ku yërëm bindee yi di leen dimbali may wax ak yow di def ak yow

ak jëf aw yiw ndax dafa mel ni dafa mel ni gëm yàlla mooy fondement bi lépp mel na ni moom dong la yàlla am soxla ci ñun ngir bu ñu bindee moom sequnoo kenn mën a wax ne ذلك la mawla lahum lolo آمنوا وأن kon لا مولى لهم لولا وانا نكون جبدلو أم صلاة جنون لا جنيتم دخل ni dafa xam jëf yi ne ku gëm yàlla faw nga war koy def sañoo koo bañ ndax da koo lëkkale ak gëm gëm ji mënta wér te àndu ci ndax fu mu wax wala si na amano rek wa amilu saalihaati la ca teg wala si na amano wa amilu saalihaati jooju su mu wax ko la mu ca teg deful lu ma ne sa ñàkk te deful lu kenn na mën a fexeel sa bopp mbaa nga may ko sa bopp kon yoonu mu ne ku ca aw daje wala rek te la nu war a suum aw si والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لو مغفرة وأجر كبير لندخلنهم في الصالحين يجوم كان كوكو من man manal sa bopp amul ku ko وسكريا ويحيى ñàkkit وإلياس kundum ñi nga taalibe bi foofu kenn mënu faa dugal sa bopp yow moom itam nag ne ku ci aw ma dugal la ca war ngaa xam si jëm ci la nu ko firana anum suñu ay suñu tënk bàkkaar bu la lëmb ci wàll bu ne ñu ko fóotu ba mu set wecc raxas ko ba mel ni mu sufaane yàlla moom buy lim ci ay gaayam du la ca boole yàlla ñàkk la boole ci ay gaayam nag yàlla nañu ci yàlla musal gaay yàlla nag ana ñan la ñu yàlla waayoo mooy ñan laata jigu xaw man yoon yi noonu billahi wal ba ci ulaayka hizbullaah alaa inna hizballaahi humul muflihuun ah lanu lanu kafiran anhum sayyi'aati mu ngoon lanu boobu annahum minal jannati xuraafan nag àjjana moom ku fa amul foo a foo war ne jëmoo fa kon nag lépp lu mu ne ku ko def am barab ci àjjana war nañu cee góorgóorlu te sant ci yàlla. loolu ma xëy na waa juróom kër gi ñu yàlla rek moo man moo nangu nga tooñ tooñ bu yoo xam ne. sànkute war na la caa fekk faw mu jégal la ko bañ a yem ci jégal ga te bu la jégal nga demal sa léegi yaram sax nga jël mu bañ a def loolu xana tofalal la ca ak yool boo xam ne bu rëy lay doon bu ñu mën a xam te loolu da koo wax wéral ko dafa ne am na man saaba wa amana wa amila hamalan salian fa ulaika yubaddilu lahu sayiatim hasanati taxul mu yem foofu dafa daal ne inna lasina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husna maabid دور نيو نك تي فاي دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات هدين تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم وبرهم فارق لمن خشي يا رب فارق لمن خشي يا رب ويجي نيو جاهم ما تا نيو تا سيريو نيو خاني كو بغي جو فوفي كي غايل مودال يا ايذ الذين امنوا اتقوا الله وتخيل لي الوسيله وجاهدوا في سبيله وتخيل لي الوسيله تدرهم في سبيله boo jaayee fi sa biir yi nag moo di bay leen ci toolu yàlla toolu yàlla nag boo seetee ko bot ah yow ci sa bopp sax boo xamut ne yàlla kenn ngay dafa dafa defe ne xëyaloo kenn ngay xëyal ñi mën na laa kenn waaye toolu yàlla bi ku ciy xëyee ko gont ba am ci ab boo xam ne yaa ko bay wala nga am ci angaar boo xam ne yaa ko bay da nga xam ne benn baat la yor mën na nga la salion pour ñu si jëm wax nga tele dal wu ko yëfandoom kon nag lu waay def sa bopp nga ko def kon nag ah saalihaat yi nga xam nag ne moo tax yàlla di wax waa mbiru saalihaat yi nag kooku moom na nga ko misaal ni war a demee mu ngi war a demee nag ni matt moo xam ne dañu ko dajale takk ko aw say ngir yenn say yóbbu ko moom yàllaa ko jagleel ay jàmm yoo xam ne moo leen roof kattan roof leen dimbal ñu roof ko mën a fab yóbbu waaye nu mu sàmba sura bari si nun li ma war a mën yàlla daf ma daal di awale ci yoon woo xam ne danañu mën a wéy moo di yuridu llahu an yuxafifa anhum wa xuliqa linsaanu la ñu xam daal dina kon léegi say waa gi seetal mata goo ci at nga daal di seet mata nga atal nga fakk mu ne la ah mata gi kat du laal suuf booy tëdd ngay tëdd ci kaw boo xëyee da nga koy gàtt foo toll da laa nga la nee ku la xam ne la xam mata gi ku lay dégg ne la dégg ak mata gi ku lay gis ne la gis ak mata gi nga ne nga ne mu see mata gi rek teew boo ko dig ana lim lay boo ko dee def lim lay jural moo di dafay mel ni dañu laa wan ne la kii de kenn ci saalihaat yi la bokk nga téye ko nëpp ko jàpp ko di ko teral la nga mën lépp nga di ko ko defal bu yàggee dañuy wax ne moo diw de ñëpp bi nañu ko seet yebal diw diw diw seet bu ñëwee seet nga nëpp ko jàpp ko téye ko di ko teral nga boole leen nëpp boole leen jàpp dafay daal di lan nafa kooka la nga bu yàggee ñu ne na keneen dellu bu keneen dikkee nga def ko nga defal ne ñu boole téye mbooloo nag ñu ngi daal ci ñett bu mbooloo bu ci ñett jógee Euh, kenn gisu leen dañuy daal di wax nag ne nañu leen seet mbooloo mépp ànd ñëw seet leen bu ñu ñëwee na def ñoo ñooñu rek daal nañ def jàppale nëb leen téye leen su ko defee ñëpp di ko wax kon nag mel na ni waroon kàttan yi ñoom yanu nañu xëy jox nañ leen kàttan bu ko yoonu yóbbu waaye nun ñi néew doole itam genn mat ji nu ngàddu ci feggu wu moom tax na li des ci say bi lépp doxal ci tànkam fekk suñu loolu yërmande yàlla saali at la jëfi saali at la foog ma leeral ko ba nga xam delloo leen delloo leen lépp looy jëf te bañoo kenn fekk la fa nga koy jëfe bañoo kenn nettali ko nga dëkko loola mooy ca tibi mëtal laaj lu baax a ngooga safaan ba it naka noonu wala yaatu billahi wabtaxoo ilayhi wasilata nañ ci ñëw wabtaxoo ilayhi wasilata moo de yow man nag xokk la nafsin bi imaamihim moo waral wabtaxoo ilayhi wasilata moo tax mu daal lay sant léegi ku ne wut kilifa ba bu gis baax bu jógee nga topp ci moom du la ne loo ma toppee loolu moo waral yow man nag xokk la nafsin bi imaamihim kon nag ginnaaw loolu nga te kilifa moom mu jox ma jox boo xam ne mënunoo wax ne day dafa sëy dafa gont rek lan mën a wax ngir bu addina day juróom-ñetti fan am juróom-benn fan mu door a ñëw kon nag benn nattab liwun mooy dafa gont waaye ngonta moom mu di ñi xëyoon ci su yendoo dox fanaanee dox nëpp nëpp lu mu benn yoon moom day amuñu ci moom lan lu may dañoo yegg ci dëkk ba rek fekk ko sa fekk ko yéen ko fa fekkit lu leer lu wér lu umpul kenn la danaa ko leeral ba ñu xam ko seere moom saa buñ ko dee wutee du yàlla rek dañuy soxla lu néew néew mat ñaar ñu maandu waaye bu dee yàlla nag soxlatul kenn dolli ko ca wakkafe billahi sa yéen te dafa bind ne sahida lillahu bi anni waahidu min ahli badrin maana ani jal sahida lillahu bi anni waahidu min ahli badrin xaafa min nil jal loolu déglu leer nañ mu wax ko ne kenn li ci ahlu badrin te yàlla tere na dal cay teg ne kamaa mi daji yëpp si wa xale mi jaxala misla assu si wa assu ni mu defee sama xalima ak sama daa mu mel ni jeeci yo doon xeexaan ak yonente bi ak fett ya ne la seeree loolu dal cay teg ne yaa man jaxalte bi bi si misla sahab lafsan wa maanan doona lay rin wa xarab fa surtout misla man jameel xasawaat xadara xamdu waa waa jëpp taxawaat kooku nag yéen ñëpp xam ngeen ne lu dese rajo rajo lu di ko ngir la ndongo lu ne xam na ne ngir moom boo koy def boo lampee dab la ci ko ca dara. ni mu ko baaxee di def sëñ Abdou Khadre Mbacké bi mu jiite julli gi ba pare teg na ci xutba boobu ngeen dégg ci kàllaama arab ba tey it Cheikh Abdou Ahad Mbacké xalifa général kullu murid ni mu ko baaxee def ci bés bu mel nii bu amee jóg na tamit jël kàddu gi waxtaan ak euh, mbokki jullit yi waxtaan tamit ak mbokki talibé yi fa teewoon yëpp kon nag léegi ñu déglu euh, Cheikh Abdou Ahad Mbacké xalifa général kullu murid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokki jullit yi yéen bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci bis yi di leen jéglu itam ci loo xam ne xam naa ko ak loo xam ne xamuma ko ci lu waru sama diggante yéen ginnaaw bu ma leen gërëmee nag sant leen maa ngi leen di dikk rek as waxtaan su tuuti soo xam ne ci yetti fànn rek la jëm genn gi ñu ngi jëm ci waxtaan bi ñu fi doon wax ci wàllu jaayante lu ca juddoo lu am njëriñ loo xam ne lu mat a xam la ak diggante sëñ Touba ak yàlla rek dolli ci as cam le ak suñu diggante sëñ Touba nag yette yooyu rek la li nga xam nag ne moo bàyyi ko ci wàllu jaayante bi te warees ko waxtaane ba mu gën a leer ndax lu nu amal njëriñ di caa bàyyi ko moo di sunu borom ba mu waxee ne istara minal mu'minina anfusahum dafa daal di wëlbatiku daanaka xam ne ku jënd la fa moom yaa ko moom te sañ nga jaar la nga ca bëgg a def nga def ko mu daal di wàccee yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina loolu li mu ci jublu moo di ñu def li mu wax ba moom mu defal leen li mu leen wax ba mu ko defee nag bi lëf li yegsee te daal am nag ñoo xam ne dañoo waxtaan ak yonent bi ne ko daal ci sa biir yi bokk nga ne daal di xëy rek ne tell ci seen kaw si lu dul waxtaan ñoom loolu daal defee na ne ku ko mën a bañ a def moo gën nañu leen woo par ku nekk ñu sant lu boo ko defee fa lillaahi alhamdu boo ko deful ñu daal lay laaj ci alal loo xam ne eh, dana yëpp suuf it mbaa ñu daal di ci sa ba mu ko defee Sidina Omar moom daal moom day loolu andu ci moom daal lu muy lu muy def mooy li yàlla santaane rek ci la mën a ànd ku ci jiitu mu topp ci ku ci jiituwul mu jàpp boppam ba ñu ko defee moo ma daal gën a lëng ci ji ñu daal di woote ku yonent bi woo ba nga ñëw rek mu sant la tuub nga ne ko man day mën a guma ko mu daal lay xamal nag ne la lu mën a ñàkk wa ilaa laaj naa la nangam lim boobee mu la wax nga daal koy wax awuma ko mu ne la bu ko waxati ba ngay jóge sa kër yaa ngi wax sa soxna ni ko denc bi ma denc fii bu ma demee te dellu siwuma mooy le ma moom te loolu ëpp na lii ma la laaj su ko kooka daal di ko ne loolu day fekkee woo ko woon kon nag tuub naa ñu yendoo loola yendoo loola yendoo loola ba ngoon sidina jibril daal ni cëpp nag dal di ne ما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يسخن في الأرض تريدون هر الدنيا والله يريد الآخرة والله حسيس حكيم لولا كتاب من الله سبح كتاب جمع له المفص لمسكم فيما أخذتم فيها أصحاب حكيم فكلوا مما حنمتم على أرض طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يونس بلاد نيوك كت سم دون وخه dem ba ci sidina Omar daal di ko ne ak xaqu maaka alaqu ma Omarin ji loolee ko indi farox ji ñu ko tudd ko indi kon nag nekk ci dëgg bañ caa wéet ak wéet ak mu metti ak mu naqari moom la ñëpp war a yemale ngir li muy jur gën. loolu faaw war a leer kon nag ñooñu itam bu ñu jaayanteeg Serigne Touba te ni ni ni gars yi yonente bi defoon rek la ñu def an fu sew mu am wàllu la ko jox. li nu wuute mooy ñoom dañ leen a daal laaj ba kañ sunu sunu sunu jaayante jëm sunu yëru dund. àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci moo demee ci Touba Mbacké. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi maa ngi leen di nuyu ba gën a màgg ci nuyoo yi di ba gën a màgg ci siyaare ci bis bis bu tedd bii di leen baalu yéen àq du ak du feeñ ju ma xam ak ju ma xamul bëgg nag xam ne sunu waxtaanu tey mën naa bañu waaye mën naa yaatu ba am lool mu ngi war a dale ci li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk ku nekk bëgg ko ci di ko wut la koy maye lu waree sa xam la lu waree sa waxtaane la li koy xañe boo ko amee it lu a waxtaan waxtaane la li ma ni tuuti ñàkk te ku nekk bëgg ko te ku ne di ko wuti moo di ak dolliku ak mucc te mënu koo defal sa bopp yàlla rek a koy defal jàmm te dafa joxe yi tax mu def ko itam kon sart yooyu a xam yu a sàmm la yu mat a góorgóorlu la ngir ak ko jëli ci dulub cant rek ndax sunu borom dafa wax ne la in shakartum la na kon nag loolu daal li mel na ni ci cant gi rek ko aj mel na ne nag bañ a sant itam saxul mu yéene nu ko ngir am na lu muy jur loo xam ne bëggalu nu ko bu dee wax wala yar laa li ibaadihi l-kufra wa in taskuru yardahu lakum loolu bu ko dee wax li li nu sant war a jariñ loolu la nu yéene li nu eh, bañ a sant di wàññi it yéene ko moo tax mu di ko wax waaye amul lu ko cant gi jariñ amul lu ko ñàkk sant gi di wàññi ngir faman sakara fa innama yaskuru li nafsihi ko sant sa bopp rek nga santal wa man kafara yaa càkk xëy na laa xam ne kon nag mel na ni cant ci ci boppam moom lii mu ngi yéene ak dolli moo waral bu nu ko defee bu nu mu gërëm ah mucc gi nag moom ak tuub rek a ko mën a waral saa su ne dana war a dëkk rek ci tuub su ko defee faw dañuy mucc yaa ayyuha allazina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuha asaa rabbukum an yukafira ankum sayyi'aatikum wa yudkhilakum jannatin tajri loolu nag bu ko yàlla waxee mbar ngeen a mën a xam ne kenn mënta mucc te du dëgg ak tuub kon nag nan sax ci tuub te góorgóorlu ci ak tuub bu nu ko defee rek mucc moom dana nu ko daal di def ndax mucc àddina lay doon ak boog àllaaxira li nga xam nag ne loo sàkku sàkku sàkku eh, ak dolli ko ci ak cant ba yàlla defal la ko loo sakku sakku ak mucc ci tuub ba yàlla defal la ko boo ko bëggee daal di ñàkk rek jaar ci mooy pono po moom mooy loo xam ne yàlla sakku ko nit rek koy xalaat di ko def wa maa xalaqna samawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiina maa xalaqnaahumaa illaa bil haqq asamaan ak suuf ak li ci diggante bi binduñu ci lan ngir law aradnaa an nattaxisa lahwan lattaxasnaahu min ladunnaa in kunnaa naa bu ñu jublu woon a fo muxarrabiina yi nekk ci suñu wet mu sàkk ci ñu ni fa lool te defuñu kon na leen pomam du lu am ngari del ci nag ni afaasituma ana ma xalqanakum harasan wa annakum ilayna la turjaun kon nak lolu war na leena a ni yalla sakku lu ngir po te it la ñuy di ko fa yóbbaale po da nga ko rit te po lepp la lo xamne kuy wut def ànd po dang ko ñaa do ko am sax ko ko am ba noppi di ko defit da nga ñàkk la nga doon am yalla nu yalla musal na ci euh, wut lëf ba am ko ñak ko li lu mënta di ko wut yalla nu ko yalla wërsegalé li lu mënta ñak di ko wut muy tup mu muy ak mucc ak ak yal nu yàlla dimbali ji nu sax di ak jub yal na nu yàlla dimbali ji itam nu sax di ak jub ba maanaam am ak dolli maanaam ak mucc te mucc ci bopp ki nga xam ne moo leen moo leen di xañe ñoom ñaar ñëpp. mel na ne nag sant moom lu nu war a def suñu jom la ndax am na euh, saay-saay boo xam ne fexeel nañu la mu mën lépp fab na aw yat sànni nu ko ngir ba muy daanteeg boromam naa ko fa bi ma axawaytani la aq'udanna lahum siraataka al mustaqima la la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aksarahum sakirin wala tajidu aksarahum sakirin jooy rek nu dal mel na ni sant jafe na nu lool ngir nawet bu gën a rafet ci nawet bi gën a baax ci nawet bi sax boo amee koo mën a gis boo ko laajee fa ngeen bàyyi ko na ga mel daanu faras lëf rek lay wax te daanu faras lëf lu cant nan maa si ci sant yàlla nan maa si ci di tuubal yàlla nan maa si ci wattandiku ko yàlla na nu yàlla say tuubaa jubbi àggati nu fa nu jëm te dara bañ na yàqal saa yi rek bati jërëjëf yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalib yi yéen dëkk ndoy Tuubaa yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant dellu si rek am waxtaan su tuuti rek lu ma war a waxtaan ak yéen leeral ko loolu moo di man day la ma leen waxoon ni leen dana tànn loolu taalibu sëñ Tuba bu ko fas di liggéey di sàkku ngërëm ngërëmam loola rek kala laa nekk te ci dalira ko dëkk bi rek di Tuba dafa am lu ma bëgg rek na ci ko mo la ñi ci bëgg ay barab di ko fi sàkku ci ñu xam na mu demee léegi day ci ci Tuba moské moom lotissement bi ñu fi def lépp maa ko fay fay ji ma ko doon fay defi ma ko dara lu weesu jàppandal ko taalibe yi nga xam ne dañu fee bëgg ay barab. léegi nag lampo yi nga xam ne dégg naa ne daawuñu ko ci fayu du lu war li ñu ci daal laaj dara du ci lu war li ñu daal moo di ku fi bëgg barab wutal matériel barab yaa ngi fi danañu la jox ñu amee fukki weer yaar te defoo sa dara keneen ku yor ba bëgg a def. Banyak ñu ko jox mu def ko fa yow nga yëge fi ba jekkale ko ñu jox la feneen noonu daal lañ koy doxale li nga xam ne ñu li ci ci ay lamp yoo xam ne des baraan fayu loolu du lu waaf lamp ku dëkk fi barab la ko dee si fayu ku fi dëkk yaa sa njaboot nag war ngaa dind te sa war a gar yi lamp ak war a gar yu ci yow di ko jëf koo xam ne rek nga fi am nag ca dara ko bu soppi waaye bis boo dara loolu daal laa bëggoon mu leer leen ngir yëg it ne njaayante mi moom mënatu la dox nga leen wóor ci ne fii ci Tuubaa moom ku fa fagoo ci xaalis di ko def ci pàkk boo xam ne du kër du dara la may pàkk rek la ba yóbbu mu wóor ci ne yow ma jëlee sa xaalis kala ko kala ko doon jaay ñàkk na ko njël du jaay moom jënd gu moom te defee su pàkk yi njël dee ko jaay kenn loolu daal ne nag weesu woon nañ ko si xëy lépp ñu dafa jàpp sax muy jaayee waaye nag amee ñi ko ma leeral leen ba ku fi bëgg ci barab rek xam ne nii nga ko war a am jafee leesu ko ku bëgg mën ngaa am fa lotissement di yem def na ko dolli ba ku bëgg boo amul tey bu ëllëgee nga mën a am waaye nag li am ko wulit nga yëg ne ah, fexe matériel su koy defar mooy liy dëral nag am li nga ko am waaye lu tolloog nag di ca joxe ay ndaw am di ca fay ay lamp di dund ay nit yoo xam ne nekkuñu fi décé fa lamp mu ñu ñu lépp loolu daal santaane su ko ko fi defit di du fàtte loolu rek la day ñëw am lu ñu tawat loo xam ne lu leen far la loola moo di dañoo wax ne baraasi bi nga xam ñoo koy baraasi ci tiwo yi di ci génne ndox mi andi la leen tasse ci ndox mi lu doy ni di ci nit ñi di naan kon nag santaane nañu ku bëggatee baraasi ak réew bi ne foo bëgg mën def da ngay def tanaan yónnee ko préfet Bakke préfet boobu su damaa yomatee ñett ba ñeent mu yónnee ko service bi service ba yabal si ñoo xam ne ñoo leen di defaral nañu ko war a def kon nag yéen léegi ne kon defal ko sa bopp lu ñu tere la ñu tere nag képp ku ko juum ba def ko la la koy set bu mu la bett ndax lu ñuy tere moom koo gis mu am lu ko naqari def lu ñuy tere ko tere nañu ko nag tere mut laqan la bu leer danañu sàkki euh, village ne ña fa ne danañu leen jox ndigalal ñu di ko wër képp koo xam ne ci sañu nga jiw ba defal ko sa bopp dara si jiw te daañu ko jëflante yow ku soxla daal ku la ku la ku la indil ndax loolu jafewut bindal bataaxal def sa demande yónnee ko préfet préfet saa boo xamante ne dangaa ne dajaloo na ba mat fukki demande danga téléphoné service bu ñu ñëw ñu ñëwee ñoo xam ne ñoo leen koy defaral nañu ko bëggee loolu nag bari ci seen bopp xel te wattu it nduum te fekkaat leen ci loo xam ne dana jur leneen xam ne day ma ni dana leen a bett te bett laga waxaani yow dong la bëggoon a leeral rek li fi dee si amatul ak li fi tee kër ak xamal leen ni njaayam suuf si li ñu fi tere la dul du fi mën a am am naa nag lu ma ci def noo xam ne koo xam ne defe nga ne war naa mën a am ba nga def ko it da nga sis ca loola loolu moom dama jarul may wax na ma ko defe waaye am na képp koo xam ne kii daal defe nga ne warate nga fee mën a jël suuf sii nga xam ne Sëriñ Tuubaa rek a tax ñu ñu def ko fi nga defub jiwo defe ne mën nga koy jënd di ko jaayaat nag kooku ku mën a doon ci àddina bis boo ko defetee da nga xam sës ci da nga sës ci lu tax nga xam ne mënta am teew boobu nga xam ne tere nañu ko njaayante ma suuf si bu leen defe ne dafa yem ci Touba mosquée lu leen ñëw ci ne mboolem lu aju ci Touba loolu ci la képp koo xam ne waaye yaa nga fiy defante ay suuf di ko jaayante te defe ne war naa mën a sotti sa saasa da nga xam bu baax a baax a baax ne loolu mënatu la sotti ngay suuf si bu dee ci àll bi mën leen a am fenn lenn loo xam ne lii dinañu ko toppatoo def ca la li ngeen ca war a def door caa mën a am këy ngeen mën a moom suusa kon fii nga xam ne dañu ko moomale sëriñ Touba ngeen defe nag ne warees na caa mën a bàyyi ko ñu di ko juree ak di ko jaaye di ko defante na la neex loolu ak doyaate rek la boo xam ne ñu si nag mu ñu ko seetaan du lu am du lu am li ci war li li koy war a saafara nag defees na ko ba noppi soxla wuñ dee si ko wax ku dox ba fis rek da nga xam ne doon nga def lu mënta fatti jërëjëf jëf bàl leen naq loolu waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen yëgal ne fii ma nekk tey jii ci Lambaye fi laa nekk démb ak tey fa soose yendu ba fajaroog alxames yi ma dellu Tuubaa li ma fi dafay lu ma war a wax waa barab bi xam ko ngir néewu ma leen woon dara laa dafay lu ma war a wax ku dégg ne maa ngi ne looloo ma fi indi loolu laa fi wut loola moo di barab bi dafa di barab boo xam ne te barab bi dafa boo xam ne te saan la woon ba tey waaye yàlla def na du mbirum sëñ Tuubaa di ci a yëkkatiku nekk bi yoo xam ne dañoo daal di laxasaayu jëm ci moom laxasaayu googu ñu jëm ci ak jëm ci moom moom képp ko ko def yàlla ci boppam rek moo la fab xetam xeeñal la ko nga di ko topp waaye du lu du du du lu muy ne booba sababas loolu ñu bëri fi ay kilifa fitna yu metti yu ñu leen def nangu seeni alal def leen yu metti ngir bëgg ñu dellu gannaaw ca loola te taxu leen ca dellu gannaaw kon nag bu ñu toogee di sàmm loola di ca góorgóorlu ba am ci say taxawaay bi ñu ci am mbir mi dox ba tasaaroo fi nii mu fi tasaaroo bokk na ci xeeti cant yàlla ak sant xéewalu yàlla sunu teew fi tey ji seere loolu ci mbooloo mi fi ne sababas loolu nag moo tax ma sant leen kër gi ñu def mu doon firnde lu ñuy xool saa su ne mu nekkal fi Sëriñ Tuubaa li ko def nag moo di dama leen cee fasal lépp lu ñu fi jëf ci kër gi ba kër gi taxaw fi jëf jooju yàlla def ko ay xaaj benn bi fekk ña leen fi jiitu woon te xeetu sëñ Tuubaa xëy ñu leen ba ñu mën a ànd ak moom loolu xeet di leen dellu itam ci ndimbal ci képp koo xam ne yàlla dogal na eh, ñu suul la ci barab bi loolu mu doon ndimbal ci ñoom doon itam seere ci ñi nga xam ne ñoo koy jëfe woon lii xeet bi xëy ñu woon leen ba ñoo ànd ci dimbali itam ñi nga xam ne àndoon nañu ci te bàyyi ko fi mu dimbali leen dimbalu ma sëkk yéen itam mu wëlbatiku ci jëf joo xam ne dafay doon seenu lay omal xiyaamati ci kanam Sëriñ Tuubaa loolu itam nag jeexee bu ciy des fekk kër gi di fi nekk di fi nekkal Sëriñ Tuubaa mu wóor leen ji leen ci ay waxtu bu ne ku si yemoon àllaaxira yi sawal di la ko fekk loolu daal mooy li nga xam ne mooy ci sama pas-pas léegi nag digal naa leen ngeen takk te ànd positif ba ngeen yoroon ba ngeen koy tàmbali ngeen dolli ci beneen bu na toll te def ci jàkka joo xam ne ji jàkka joo am maanaa lay doon ndax kër gu ne bu ñu koy tuddee Serigne Touba jàkka jaa war a jiitu sax kër ga door a am kon nag bu ñu tàmbalee kër gi ci jàkka ji ñëw guddi jàkka ji war naa daal di ñëw te mel na mu war a mel bu ko kër gi gën ndax Serigne Touba nekk na fi ba bàyyi ko fi fa muy jullee moo gën di tedd saa su ne fa muy dëkk te loolu jox yàlla àqam rek ak jox ko ak cëram kon nag loolu mooy li ma ci indi tey kon sant si leen gërëm leen te eh, seere seen sant li leeral leen li tax ma di leen ko jëfloo bi loolu wéyee nag ma del si ci waxtaan woo xam nag ne eh, fii ma nekk mbooloo mi fi ne ci laa ko tàmbalee ba fu mboolum jullit nekk man daal li wéy ci man moo di jullit bu ne sama sañan la lay jëriñ ci addina ak la lay ci àllaaxira yàlla defal la loolu na mënta am ci lu jullit bu ne xam lu ak jullit laaj ak jullit daal li mu laaj moo di yonente bi dafa wax ne lislaam yi kenn du mat ndare ginnaaw boo xamante ne la nga yéene sa bopp yéene nga ko sa morom julli yëpp loolu waxal naa leen lu ko li ci magal bi maa ngi koy fedd li jàppante leen yéenente leen jàmm bokk leen ak bëgg bokk leen ak bañ te bu ko defee mu wóor leen cëng ne ci loolu leen di mën a yàlla di jaar bay si ñi nga xam ne ni jiitu woon nañ ci te sonn toone boobu ñu doon sonn bari ci démb ak bari ci démb itam ba tax ma di leen tudd fii itam bëgg naa ñii fi des te di xañ ci seen i tànk mu wóor leen ci ni ñoo bokk am nañu ko wuute tuuti rek wuute ji moo di laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika ahsanu darajatan mina allaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye terewut wa kullan wa'ada Allahu l-husnaa ñu dundale woon seen alal te xeex ba nga xamante ne fatu Makka amagut ñooñu ñoo gën a tedd ñoo gën a màgg naam waaye te wut ñu dundale seen alal te xeex gannaaw bi itam yàlla denc na leen aw yiw ñëpp ba da leen a boole ab añ kon nag ngeen yëg ne ñi daje nag lu a bokk bañ kon nag loolu doy na ak cant ma fàttali la du tiyaan la du xaadir na ma ko waxe woon diggante xeex ak ñii ñett daal kenn mënu caa tam sa ragal la kon nag def leen benn bool leen seen xol bool leen seen yéene bool leen seen bëgg-bëgg seen lépp ànd léegi nag ma yëgal leen nag ni leen ah góorgóorlu leen nag ci liggéey te rafet njort te seenu jàmm xam-xam moom yàllaa ko am mooy xamal ak jaam it mu xam waaye njort moom jàmm bu ne mën na ko kon nag man lay ci sama njortal bopp seenu naa ne aw am na jàmm am na teraanga am na sutura am na li ko waral dama koy wax man day damay toog rek di dégg waaye rasulullahi mi nga xam ne yàlla mi ko bind ba mu koy bind yërmande bindee si tax mu daa ko mu bind ko yi te ko wax ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina de dégg naa ba tey waaye jotaay bu ma mës a dégg ñu tudd ko jàkkalee war a doon wala ko dee si jànge waaye mel ni man ndaje bu addina bu ñu tuddee yorante bi dégg gu ma ko woon ay ay ay xatal ji dégg ma ba loolu sax man jural na tiitaange ci sama xol bopp bi ma gisee léegi nag fu ñuy fu ñu fu fu ndajum addina am nit ñi fa ma njort ci defe ne yett yi yàlla wax fas nañu ko yéene defal ndax gëm yonente bi képp ci la sunu dimbal ne ndax yàlla dafa wax ne man yuti rasoola faqad ataaha Allah ku gëm yonente bi gëm nga yàlla kon nag suñu gëm yonente bi ba di ko tudd fu ne mën naa rafetloo njort ko xam ko xam dara ku ne jël sunu borom dafa wax ne wala waa anna ahlal xuree amanu wa taqaw la fataxnaa alayhim barakaati من السماء والأرض دخوانا واريو مدي دوتك إذا ما سن سجل يالك بيك واتنا ندنا واجه كده جنت أمان أسف أي باركة يو خبني دانو ريو بري سلب وخو باركة سنو لبانا باركة أي باركة لو أي باركة كو يالا واجه ندنا خوا لوخ جلسان نرس تلو لو منكو أج بجيب ما سن سجل قالوا تتكني ويبصر المؤمنين سيري أعمالون الصالحة أن لهم أجرا حسنا ما تسيني فيه أبدا mu ne bëggalal mu ne bëggalal ñi nga xam ne gëm nañu yàlla tey jëf yu mu wóor leen ne dencal nañ leen yool bu rafet te yool bu sax lay doon ba faw dellu wax ne allahu waliyul lazina amanu yuxrijuhum mina sulumaati yàlla mooy kilifa ñi ko gëm te leen génne ci ak lëndëm tabal leen ci ak leer kon nag li war a mën a tax yàlla eh, ubbil nu bunti xéewal ci asamaan suuf mën tax mu dencal lu woo xam ne ab yoon lay doon boo xam ne bu sax lay doon faw mën a tax mu génnee si ak lëndëm dugal nu si leer saa boo gisee jaam ñëpp di fàttaliku loola far seeni xalaat jëm ci mën laa ñaatar sam jot kon nag man sama xel dal sama jot raxat na maa ngi dénk dénk daal ngeen yëg ne yàlla rek ma bëgg bëgg leen ko yàlla rek rek da nga la nga bëgg te di si bëgg lépp te mu am njëriñ ma nga foofu te lu kon jërë ngeen jëf waxtaan dan loolu bëggoon rek ngeen yëg ne lee doon sama tànk ak fàttali li nga xam ne moom la nu war a def saa su ne jërëjëf bari na. jërëjëf Mbacke Mbacke. yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ñu ngi bëgg naa rafet ci nuyu yi maa ngi leen di sant cant gi gën a sell ci cant yi. wëlbati ko nag am lu ma bëggoon rek ma waxtaan jëmale ko si. liggéey dafa jot te doon loo xam ni moo yor addina moo ndax nit ku nekk la ngay liggéey da ngay ci addina la ngay jariñoo ci àllaaxira ci lay kon nag ñu war a def nag suñu ci liggéey bu baax a baax te liggéey ci boppam it nu bañ cee boole ak naa bu dara ci yërmande yàlla ñëpp inna ko laa yasmiloo billahi ilal xawmul kaafiroona yërmande yàlla ab jullit du ko naagu mukk def naa nangam daaw baaxut def naa ko daaw jéeg baaxut war sa fee pare itam ngir baax gi nekkul ci loxol kenn loo ci yàlla te ci coobareem rek ko aj te ci coobare ji xamuloo fan la nekk te fekk na itam nag jàmm bi li mu war a def mooy rafet njort ci boppam digganteem ak boromam ngir jaam bu ne am na yu la yàlla defal yu bari yoo xam ne sakku woo ko ci moom yërmande nag dimbalam rek la la ko defalee kon nag bu wëlbati ko am looy sakku it te loola aju ci moom war nga caa am xam ne ku lay defal te la santoo ko te la defal loo mënalul sa bopp te gën lépp la ngay sakku ci moom mën nga caa bañ a ñëpp nañ maa ci liggéey yi yéen nga xam ne naqari jamono. moo tax ngeen bàyyi seen i kër ak fa ngeen dëkkoon dem ci taax yi di fa xat-xat loo di yor loo xam ne ku ko gis xam ne lii du liggéey ci ak faña nga koy def di wëndeelu di jaay te la ngay jaay du jar nga wëlbatiku defe ne loolee war nga caa mën a wi ngir naqari jamono loolu bàyyi leen ko delloo si leen seen xel ci yàlla mi nga xam ne moom moom jamono mooy defar jamono moo yor lépp jamono dellu nag fa ngeen nekkoon te fas yéene liggéey ci yéen naa it ne ñi nga xam ne ñooy dimbalee am nañu xalaat yi dimbali ku bëgg a liggéey ku ne kon nag dooma ci des ak ngóor-ngóorlu ak ko fasoo kon nag na jom ji ñëw na góor-góorlu ji ñëw na fasoo ji ñëw loolu mooy li gën léegi daal place ji nga xam ne mooy juróom-ñaari fan ci waree teeru del sëñ Abdul Xaadir bu talaata jooju yi dellu see na ñëpp tàmbali ruut te fas yéene lañu koy ba ñu koy tàmbali ñu fas yéene bu ñu ko tàmbalee dootu ñu ko dellu gannaaw benn yoon ba tere yi àgg ñu nekk ci yeneen yi liggéey itam te xam ne ca la seen war a bàyyi ko nañ ëpp ngóor-ngóor te xam ne lépp lu nit di def te ak jiitalu ca ak maandu ca la muy liggéeyee barke mën na kaa bañ a wàcc góorgóorlu leen ci jéem a jub jéem a jubbanti seen bopp jéem a dimbali seen bopp te delloo seen yaakaar yàlla yàlla di su ko yaakaar mukk sa yaakaar tax léegi wax jii may wax naa boppi jullit yi di wax naa boppi tali bi waxuma ko ngir ne damaa nekk ci kanam jullit yi waxuma ko ngir ne damaa nekk ci kanam tali bi maa ngi koy wax ci kaw lislaam dafa di mbubb xam ne jullit yëpp moom la ñuy wàcce kon nag jaar mu julli bu ne xam nga war bo ci ne tobb bu sa jëm bu ñuulal gakkal war nga ko wax bo ci kayit lu ta dal lo xamne day ci dima wala mu gakkal sañ nga ne lii dañu ko dindi bu ci sa kàttan yéegee ci dindi ko nga dindi ko bu ci sa kàttan yéegul nga wax ko bañu baña la ci ëpp kàttan ko dindi foofu rek la wax waaye waxuma feneen legi nak l'islam mom mom rek la no am ko defene am nga leneen nit da nga dox te xamoo lu xew waaye ab jant dana fenk mu wóor la ne yoroo dara ngir li ma wóor moo di yàlla day mooy gën gi yonente bi mooy buur bi lislaam mooy xob bi ñuy wax ku ci réeru da ngay fande loolu mën naa ko wat loolu lu ma leer a leer loolu itam dama ciy joxe firnde yu leer ñëpp mën a xam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la noonu la yàlla yónni moom dong la yàlla jox li mu joxe lépp a ngi ci loxoom te itam tu bi ñu koy tudd di tudd beneen yonent du dara lu may aw tur rek la waaye fi mu teqalee ko yonent yëpp maa ngi leen koy wax léegi ngeen xam ulul xasmi mooy darajay yonent yëpp benn yonent weesuwul magub benn yonent weesuwul ulul as te juróom dong lañu kenn ki mooma wa minka wa min nuuni wa ibrahima wa muusa wa isa ibni mariam ginnaaw boo xamante ne soxla batuma risalu yonent yam boo bokk ak ñoom yegg si ba noppi nag foofa yàlla leen ba ba bu leen fa bàyyee escalier yi mu doon yéeg jëm ci boromam ayatan makkiyatan yi ci alquran yëpp ak ayatan madaniyatan escalier yooyu rek la doon li moom lañ doon li إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك له ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. yow bi yëpp nekk ci sa loxo yow mi ci mbindeef yëpp ci waxee nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wajhatul abad dénk naa saa bopp ak sama diine ak sama ñoom ak samay doom ak sama dëkk bii di Tuubaa ba faaw dénkaane boobu nag waree na ne nun day dëkk bi noonu bi mel ni garay ak xàllay bu ñu boole ràmb bu garay ga yàqoo yàqaale xàllay ga bu xàllay gi yàqoo yàqaale garay ga kon nag lépp luy defar dëkk bi mooy sunu defaru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 ak yokku jëm ci dara ji yëpp a nakale wa jannatan shariji muridi wa jannatan an hayati maridi ñaan naa nga def ko moom suba dëkk bi di Tuuba muy àjjana yi bépp taalibe bu joxe boppam ci yàlla sóobu jëm ci yàlla di pakk buy fet di wëlbati képp bu fet di dàq bépp feesaay bu dëng bu jubadi wa xajjatan li man biluufin iftara wa hujjatan xala muxaalifin xala ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba barab béréb bu taxaw taxawaayu ak ci képp ku yéene aji te làmboo ak néew doole ak tële ba mënut a dem Màkka ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba yowmal xiyaamati muy layul islam ci cër bu duyoo wala mu wuute wala mu gàddu li yàlla digle wala mu tere wala li mu tere ci diine l'islam wasarfu yaa rabbi ahaba maskani fi sani ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba muy dëkk ko ay bi gënal yàlla gënal yonente bi sallallahu alayhi wa fii ci sunu suuf si mu dëkkee wasarfu dër ban maskanat tibaahi ni bi sunnatin la maskanat tibaahi ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba muy dëkk topp ndigal ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba faw te bañ a doon dëkku bidaa wateex da ban maskana taxallumi wa mawliha fikrati wa taxahumi ñaan naa la def ko moom sama dëkk bi Tuuba muy dëkku sàkku xam-xam tey barab bu dégg maanaa ak bu defee xalaate xalaat yu rafet yu am njëriñ njëriñ ba xaw wateexu maskana xuróojin min sulam di noori wattihan kulla man salam ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bi Tuuba muy dëkku génne génne ci lëndëm tàbbi ci leer ñaan naa la nga fegal dëkk bi képp ku tooñ boromam wala moromam ومسكني ومسكني سلم من الفجاري ومن هذا الأهل بما ينجاري نعم نعلم من سعودك بي بتوبا يمسل كتي ساي ساي أكسين التخي نعم نعلم ما يواتوبا خيول من دخم مباري ملوانا دار لذولها أندخ ومسكني حال مسكن الكفراني ورصدي والحرفاني والرزواني نعم نعلم من سعودك بي بتوبا يمدك الجدل بيدك الجب آه، بيدك الخام بيدك المرمى لله ومسكن الإرشاد والتعظيم ومسكن التصوير والتفهيم ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bii di Touba muy dëkkub jubal ak jubanti tey dëkkub xamle ak digle ma dégle maanaam wa maskana ij'al maskanan mubaraka wa sayyirani salikan wa nasika ñaan naa la nga def ko nga def sama dëkk bii di Touba mu dëkk bu barkeel ñaan naa la nga def ma may ku sóobu ci yoonu yàlla te di ci sóobee di ko sax ci jaamu yàlla wa wa maslakan bi subul ittibaa'i wa maslakan bi subul ittibaa'i nee naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba mun fu dee fi sóobu ci yoonu topp ndigal ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey fu dee fi bàyyee yoonu bidaa wa maskan wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li daxi kulli dayri nee naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Tuuba muy dëkku xëcc yëpp yiw di lépp lu ba tey dëkku dàpp yëpp xay ak day jëpp lor wa matlaban bi rahmati rahimi wa mahraban min taati rajimi nee naa la nga def ko moom sama dëkk bii di Touba muy fuddee fi sàkkoot topp yàlla tey fuddee fi dawe topp seytaane wadaara islaatin wa shakkin wa wara wadaara sunnatin wa man jannin bida nee naa la nga def ko moom sama dëkk bii di Touba muy kër bu sellal di kër bu dëgg di kër bu sàmm di kër bu sunna fi mu muccee ci bidaa wal tax mi daar yi am fujuur wal fisq wal baati di fi buhóor yi naa la nga xaaral tabakkër ci Touba wëlis caay-caayu yéefar ak caay-caayu jullit te xaaral ma ko wëlis ak neen ci jamono yépp wajub laa xayra min aljihaati asiti wa xiyaha lil axirati ñaanaa la nga xëcc lépp yiw ak lépp lu baax ci juróom benn gox yi yépp jëme ko ci sama dëkk bii di Touba te ñaan naa la nga xegal dëkk bi gàtti àdduna ak àllaaxira yépp xutuni ani seytaani yaa jalilu wa maskani wa kullama ahulu ñaan naa la yow buur bu mag bi nga xaaral nga xaar ma sàmm ma biir ak picc maag dëkk bii di Touba ak lépp lu ma jaboot ma jaxal xarimana xarima amina bakon bii sii kafiitan amina ñaan naa nga def suma xurum jii di Touba muy xurum duñu wóolu doo xam ne du tabbi biir ci lu neex yàlla raw mucc wóolu ñaan naa la nga warlul ma wattu gi ngay wattu ak sàmm gi ngay sàmm Touba sama dëkk bii wala taj xalanaa fàttaliwu ci yooyu moo war a amatam di leen naa la nga def ko moom sama dëkk bi di Touba mu fees dell la bay fangat ci leer ak yërmande ba faw ci lu amutu yamaay waxfir li man balaw bi naa xarraf yi waxfir li man amarahu bi si jami ñaan naa nga jégal mbooloo mi tabax tabaxam gu yëkkatiku gii moom sama dëkk bii di seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu mujj naa la itam nga jégal mboolem ku leen ci mas jox ndigal ci tabax bi seen mboole seen bakkaar yu jëkk ak seen bakkaar yu mujj wala jamihi man ahanahum ala binaayihi allati bi fadlika ixtalaat ñaan naa la itam nga jégal képp ku leen ma sa dimbali ci tabax yi nga xam ne ci sa ngëneel la yëkkatikoo ma ne sang seen bakkaar yu jëkk ak seen bakkaar yu mujj waxfir li kulli man baaxat sakana wala lati lahaa li xayrin ratinaa ñaan naa la nga jégal képp ku dëkk Tuubaa ak képp ku jàng jëm si jëm si fi ngir lu baax seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu mujj. li ma wax nag jëlee ko ci xasida bi ñu wax Matlabul Fawzayni ma di nga xamal ne Serigne Touba ak ni mu xëytee dëkk bi ak moom la def xasida boobu moo leen li mu si def bëgg ci dëkk bi lépp wax na ko ci xasida boobu te it wax na ci yàlla ñoom ne ni mu ko si dundee ne la ko ko yàlla defaree kon nag sant yàlla la ko wax ak xam na dëkk bi ak wax na dëkk bi te xam ne moo ko sonal bañ wan ko ko bañ war ko daw war ko tere ci xatar jëri jëri jëf alim ma loolu doon wax kon mbokk yi wa ta'ala wa barakatuh yeen mbokk yi ma ngi leen di nuyu lu bari delu di leen balu ak ah, itam ci lu ma yëg ak ah, lu ma yëgul wal bëti ci di leen ci bis lu mag bi itam nag bëgg waxtaan rek lu tuuti ci yaari fànn rek yu gàtt njann gi mu ngi jëm ci sant xéewal njann gi mu ngi jëm ci dëkk bi mu ne sant xéewal gi moo di lu toll ci weer yaari weer ak fukki fan ci gannaaw lan tase woon fii te booba réew mi sonn nañu lool am jaaxle lool te wàllu gu jóge ci kuréel yàlla yi yaakaaruñu ñu ko kon nag bi wàllu yàlla ñëwee te dara ci pënd andi ci liñ doon wax yaakaar ci nawet bi bu fekkee nañ ko yaakaar yi lépp it amewul gën a li ci ëpp lépp am nañu ko kon na wëlbati ku jëm ci ak cant lu lu lu war la ndax mooy sant xéewal te sant xéewal moo koy tax sax sant xéewal moo koy tax a dolliku sant yi nag moo di asaka yi laa bëgg kenn ku ne yëg ne rafetal ko lu war ci moom la nanu ko def bu nu ko defee mooy barke li nu defe moo koy sanal moo nuy dimbali itam ëllëg ba loolu jàllee nag ñu ñëw ci dëkk bi dëkk bi moom bu sunu borom dee wax wa man yuasimu hurumatullahi fa huwa xayrun lahu booba lam ci jublu moo di waxut ne ku màggal ormi yàlla dafay gën a màgg waxut ne ku ko màggalul dafay teel màgg dafa wax ne ku ko màggal daal moo gën ci yow te fa gën amee njariñ it fa la fa la gën ci yow ngir indi rabbi si la wax te fu lëf baaxee fu dul fa yàlla baax ga sottiwul kon nag ngeen xamit ne borom dëkk bi bi mu fii ñëw dafa sàkk dëkk bi waaye li mu njëkk a wax mooy سقطته لأنه قد صاحني لوجن به نفع مع هاخني لا دول بتكتو جدك بيتوبا بل إذا حرسها الله نيول يالله دانا فهار دخني أعرنك لولي لوير بنا في لولو أملا فانك لغا حمي مويكي سنو والونين لأنه توبا جيرك لنو أم نيان يالله دوليسي نيان يالله بيسي نيان يالله تكيسي في يالله توفي أخلو سجمو من سيدة كيب نيان بودي نيان دلسي بودي نيان دلسي فانك بسرين دوير تنجني لسيالله دان في وارا دفت lu wax lu seen lañ fi war a jëf la ñu war a seetaan ku ko fiy jëf na leen wóor jëng ne képp koo xam ne fa la sa yaakaar nekk kooku ma laa yaakaar yi ëllëg ci nga xam ne moo gën a doy ci yaakaar yi war laa fa jëm fa war laa war war war laa fa jëm taf jëm fa taxu may wax te fab sunu bakkan teg ko ci dëkk bii ci li ci sëriñ Tuubaa bëgg mooy la gën ci ñun bu nu ko defee moo nuy jëriñ wala si ni jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa wa inna Allaaha lamaa al-muhsiniin bu fekkente nag li ñu jàpp ci sëñ Tuubaa dëggal ci ñun nanu wóor cëng ne loolooy li noo def te bu ñu ci làmbee leen it sunu ngaañ lay doon allasiina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bi zulmin ulaaika lahumul amnu wa hum muhtadoon ñu am leneen lu ñu ëpp nag wala activité bopp bi ci it am na loo xam ne bu ñu bu ñu saxee ci defee ne بشريك وابد من احنا هذا لمن لا رضا من يراجعهم مرلم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لم نخرجن بهم ثم لا يجاورون فتحا إلا قليلا ملهونين أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وحاجة عن قبل بنينا نقدم نجيب ساعات خيرا بدنا ليرا لا وقت لا وقت إذا فضل جل جل جبال المرض loolu kon suñu bopp yi ñuy déglu moom lañ leen jële leen Touba ngeen dégg sëñ Abdoul Ahad Mbacke di xalif généralu Mouride yi waxtaan ak yéen waxtaan ak képp koo xam ne yaa ngi teewoon ca euh, Touba kon nag euh, lii mooy liñ leen jëlee ci bisu julli. yéen bokki taal bi yëpp yéen dëkk boobu Touba maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant.